internet yi ñu nuyuwaat leen wax leen ba tey ñi ngi kër soxna moomi kebe ah ni ngeen ko xamee booba ba léegi ku ngeen fi gis nag ni ma ko waxee sànq ci ndaanaan mbaa muy kilifa mbaa muy autorité mbaa muy woykat du leen bett ndax soxna moomi ak ni muy defee màggal gi ajaratu faatu géwél ngeen jàkkaar lool duñ leen ko présenté yaay yaay nuyu naa la <laughs> yaay nuyu naa la maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax <laughs> maa ngi sant bu wér <laughs> nga dellusiwaat rek màggalu Serigne Touba Seexul Xaddim waaw waaw dellusiwaat ci màggal Seexul Serigne Touba Seexul Xaddim suñu maam ju baax ji Xaadimu Rasuulullaahi sallallaahu alayhi yal nañ ko fi dellusiwaat na gën a déwén te rafetu fekk. te fekk tey kër soxna Mominatou Kébé sa digganteeg moom. waaw ma fekk leen tey kër soxna Mominatou Kébé bi ñu dippee mu soxna Mominatou bintu Xaadim Rasuul na ko sëñ Bamba waxee woon rek ginaar ba ci gileem mu koy doxale noonu di teral jaami yàlla yëpp ci màggal gi yal na ko yàlla fay ci barke sëñ Bamba mook sama baay bu baax bi Seex Ablaay Tage sëñ Bamba na ku ko lebal kër mu fay la guddi te daa mën a fay ndax yàlla suñu boroom moo ko njëkk a sant yonent bi sant ko kenn képp ku ko sant santale suñu boroom rek sëñ Bamba bu wëlbati koo ci sa kaw ah tubarkaa la kon na moo meeg Seex Ablaay Tagga yàlla na leen yàlla fay ci barke sëñ Bamba mi tax ñuy def lii. ku xam ajaratu Fatou Guewel xam ko muy taalibe xam ko muy murit mu yàgg ci moom loolu sa diggante ak sëriñ bi. sa diggante ak sëriñ bi xanaa ko bëgg ko moom ba àjjana la Cheikh Rafaal waxoon bëgguma la ngir ragal safara waaye bëgguma la ngir bëgg àjjana bëgg la rek di bëgg sëñ bi rek sëñ bi rek ba dee. ñi lay bëggee mën na noo xaar leneen ci sëriñ bi. ndax lu may def lu ne rek sëñ bee juutu keneen soo ko topp kontaan nañ ci yow <laughs>